de l'Ouest. président bu conseil économique social et environnemental ba woon jël na nag ñaari avocat yoo xam ne ay défenseurs américains des droits de l'homme nañu ngir ñu daal di boobu boobule xibaar foofee sa Washington rawatina nag jéego yi nga xam ne mën na ko am jamono ji nga xam ne Macky Sall mu ngi yootu ñetteelu mandat indi nag coow lu bari fi nga xam ne moom mooy ci réewum Sénégal ci digganteem ak ñi fare ci kujje politique gi lii site bi nga xam ne moom mooy The Africa Report moo ñu ko xibaar Idrissa Seck ak staff bi nga xam ne nag ay juristes américains républicain ñoo ci nekk daañu waxtaan ak waa Maison Blanche ci ñetteelub candidature bu Macky Sall bi nga xam ne ñu ngi koy rombandaat teg ci mu yëngal lool réew mi jamono jii. rawatina nag yëngu-yëngu yi nga xam ne am na ci réew mi dox ci digganteem ak adversaire politique bii di Ousmane Sonko. AGT News.